yàlla rek yàlla na yàlla daal di yërëm ñëpp rek yàlla na yërmande yàlla daal di dal ci kaw ñëpp ñi dem ak ñi fi des ba ci réew mi yàlla na ci yërmande yàlla law saw fépp nag lay xëy doon jooy euh, ki nga xam ni mooy alaaji nongolo xëyoon rendre hommage nongolo tey xam nañ ni mooy 16 janvier 16 janvier 2005 ba 16 janvier 2023 nongo dëddu nu koy jooy noppeegunu barki Dembo Ndiaye jusqu'à 150 millions à se partager que vous sa activez gagné Activez ou Uberi ou le passe internet le nga de crédit à partir de 500 francs dans di bokk ci ñi mën gagné semaine bu nekk télévision ay maillot ay enveloppe 100 000 francs le méga gros lot 25 millions ngir mën a tapel jazz 155 jazz ou le free money au jazz 150 jazz wala sa application MyFree ak méga tombola freebie, bi di free ci say xewal. Eh, gaynde gi ñëwaat na waaye bii baa moom duma nangu mi jël suñu bonbon Empire. Empire mooy bonbon bu bees bi ànd ak cafka chocolat ak biscuit bu neex pour mag ak ndaw. ak biscuit bu frais bi te ànd ak cafka tey say nànk ci sa gémmiñ ngir indi la goût bu amul fenn Empailleur mooy itam li nga soxla. ñu fi des muy yaay ak baay ak mbokk ak àndandoo ak xarit yàlla bàyyi la fi ñu gën fa yàgg George maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar. yaa ngi am jàmm sama waa ji. alhamdulilah. ma bàyyi la nga dem. waaw acca. ci bulletin yi. waaw la <laughs> Ousmane Sarr euh, Bayna Gueye ak euh, Ahmad euh, Sourang Diallo ñu leen di toppee bokk ci ab manifestation bi nga xamante ne déclaré wuñ ko procureur sakku woon ci juge bi mu teg leen daan juróom benni weeri kaso ñetti ñu tëdd ko ñoom nag ñu ngi leen tegee loxo ca kanamu primature fan yee ñu weesu ñu doon yuuxu ne nañu bàyyi Pape Alé Niang collectif euh, patient en danger di dajek euh, taskatu xibaar yi bi 10 heures jotee la ba léegi conférence de presse bi nak euh, ci liñ ci addu modi situation yi nga xamantene dañoo cancer ak seen i prise en charge jeexale ko tagat yaram ak CHAN bi amé ci Algérie Sénégal démb sobu na ci tournoi bi dóor ñi nga xamantene ñoo di wa Côte d'Ivoire benn bal ci benn bal ci dara yeneen xibaar midi lay doon ci kàllaama français 13h ci wolof lay doon jërë ngeen jëf. sur RFM. Orange Monnaie. C'est un calpé pour tous, un calpé pour tout. Orange Monnaie lance sa nouvelle carte QR sécurisée et simple à utiliser. Désormais, chacun peut avoir son calpé à portée de main, partout, à tout moment et quel que soit son opérateur. Oui, pour un dépôt ou retrait, présentez tout juste votre carte QR et c'est réglé. Rendez-vous chez votre agent Orange Monnaie le plus proche pour avoir la vôtre gratuitement. Carte QR Orange Monnaie. Yefou réseau Orange Monnaie est un service d'Orange Finance Mobile Sénégal. Je m'en vous êtes bachelier, étudiant ou professionnel. L'Institut Polytechnique de Dakar IPD, Thomas Sankara, l'Université professionnelle africaine lance sa seconde rentrée académique 2022-2023. Rejoignez des formations diplômantes reconnues et accréditées en licence et en master dans les domaines des sciences du management et de gestion, des échanges commerciaux et de la logistique, des sciences et techniques de l'informatique et l'intelligence artificielle, et enfin des sciences et techniques du génie civil, de l'électrotechnique et des télécoms. Les enseignements débutent ce mercredi 25 janvier 2023. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent dans la limite des places disponibles. Profitez des offres de bourse de l'IPD et de ses partenaires. IPD Thomas Sankara, c'est plus de 30 ans au service de l'éducation et de la formation. Pour des informations complémentaires, veuillez nous joindre au 33 867 90 45 ou au 77 529 84 87 ou au 77 529 84 88 ou sur notre site web www.ipd.sn. L'école municipale des professionnels de la santé, EMPS, de la ville de Dakar, en collaboration avec l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, UNITAR, et le Centre international de formation des autorités et des leaders, CIFAL Dakar, rouvre son école de santé dans les filières suivantes. Sage-femme d'État, infirmier d'État, assistant infirmier, vendeur en pharmacie et délégué médical. Les frais d'inscription sont uniquement à la charge de l'étudiant. Mensualité entièrement prise en charge par la ville de Dakar. Date limite de dépôt des dossiers, le vendredi 20 janvier 2023. Démarrage des cours le lundi 30 janvier 2023. Devenez un professionnel de la santé compétent et passionné dans l'une des meilleures écoles de la santé du Sénégal. Vous pouvez nous contacter au 76 166 27 30 ou au 33 864 71 ou par mail cef 3 pmcifaldakargmailcom waaye dara setu ci ah naa daal. dimbali ma ngir yàlla ngeen toog yéen tamit nag. boobu léegi maa ngi ko benn ngeen defaat li ngeen tamit nag. boo bëggee kër gi see. te xeññee ak Harmonia de cœur day nes nesi mbokk bi sante bu paré, mbootaay bi société assurance yi nek Senegal, ci Sénégal moy delu di len njukkeel ci at mu bess mi Té di l'en ni indi ci assurance Tuké ci loi de finances initiale ñu wax LFI bu budget Sénégal bu 2023 loi Bobole dafa jël ay dogal jëm ci yokk taxe yi ci contrat d'assurance yi yokkute bobu mi ngi concerné bépp bànqaasu assurance te dinañu ko appliquer ci ndortelu at bu bees bi bi ëmb société d'assurance moy wo ay clientam ñu bàyyi xel ci yokkute gogu bu ñi fay seen assurance te ñu tuke ne tukkeewul ci ñom ñoo di sant te di leen ñaanal atum jam ak Tous tous Ocean, ouais, ouais, tous Ocean, tous Ocean, ouais, ouais. Du 13 janvier au 4 février, vivez la ferveur du championnat d'Afrique des Nations. Suivez 100% des matchs en direct et commentez par nos experts sur Canal Plus Sport 1. Et supportez les Lions de la Teranga en vous équipant d'un décodeur HD à 1000 francs seulement à partir de la formule évasion avec installation offerte et parabole payante. Et ce n'est pas tout Bénéficiez de 15 jours offerts à tout Canal Plus et pour tout réabonnement. Oui 15 jours offerts à tout Canal Plus pour tout réabonnement. Avec Canal Plus, vivez 100% des matchs du Chan. Ouais dëgg du rombi nopp dëggantaan du génni mbokk dëggantaan ci rajo Futur Média du lundi au jeudi ak Aba No Stress 10 heures 12 ak nouveau programme programme bu spécial ak Aba No ci rajo Futur Média lundi nouveauté ak info du week-end mardi le phénomènes de la musique sénégalaise onde ak invité ci dëggantaan ci rajo Futur Média invité bi ñëw toog li ngeen bëgg a xam ci moom Aba waxtaane ko ak moom ubbi leen antenne bi ngeen waxtaan ak seen waykat seen seen daanaan mercredi ngeen am rétro amit ngéntali ci dëggantaan Des live 100 ambiance ak Abba No Stress ci dëggantaan ci radio Futur Média deug deug Abba dëggantaan jay aba. deug gi yaw la. damay anticiper ma neexal xol yi bala ñu dem février amul mourir. ticket Abba Show Entre 5000 VIP 10000 000. lom gaaw ci 77 655 51 80 ngeen jël seen billet ma fi ko yaay anan nongo mu la dem na nga xamni aduna amul solo kenn du fi dess nag ku web limite man tamit ma réglé wul euh, man ma réglé wul e nga Adamo neena man na génne sama xel ci xalé yi ba tax Adamo ma bi nga paree ci mam jaara kess ya aw nga jëm aba génne sa xel ci xalé yi adamo ngeen yaakaar ni mën naa wax ba man sama xel du nekk ci xale yi mel ni adama amu adamo ngi mel ni mu dinaa ko dem ba gisee yàlla na yàlla yërëm nongolo yàlla ngeen yàgg fii yéen yàgg ñoo bégal woykat bu mag bi nag jàlle maa ku sumb da ngay tooy ku ci nekk ak ki nga bëgg tar tarkàlla ku ne nga génn ci sa lune de miel ci nga ci jóge ñëw soo ko waxul kuy nem soo su waxal sa yaay fay ma samay cent mille te yàlla rek tax maire yi dañuy nekk ci problème euh, maire Kiné Ngom Kiné Ngom la ñuy wax kiki Eh, mu andak ak Aminata Diaw moy eh, ki eh, madame Cissé mom la borom kërëm lañu dénk trésor ba nek Kaolack maire yi am problème ku ne 50000 jeun jeund ay parfum sen xaliss manké ci aéroport bi man ñu nara a génn bàyyi fa ben parfum bo xam ñom dañ ko bëgg may leen mën ngeen ko jël sous fa la ñuy ak borom kërëm papi samay témoin Cline Ngom and ak Aminata mom ñi ma lay wax non moy madame Cissé ma motali leen ñom ñaar ku nek 50000 soo waxul buy lim ay mënam. ma leen di woo ñu boole kenn. bay am weer laa leen jox weer. ku la defal nga xam émission ko may. la ci Pabis ding, di jaay bàkku di ngande an ma booy sama yaay yow ñu may la bi dimanche la day yaay ji di jooy loolu noppeeguñu soo ko waxul ma attaqué yaay ji bëgg ko yóbbu ci yoon maanaam boo yóbbu sama yaay ci yoon bu ma fi bàyyi ma ne ko fayal koo gën a yomb